Bienvenue sur Salam Vision. seen émission avocat nag comme niñ leen koy waxee saa su nekk rek kenn ku ci nekk émission bi sa émission la yaa ko moom ak cas boo xam ne dund nga ko ak cas bu mu mën a doon ak cas bu mu mën a doon boo xam ne gis nga nit ki nga xamante ni moo ko dund rek numéro yaa ngi noonu ci écran bi jàkkaarloo ak yéen jël leen ko ngeen woote bu ngeen wootee incha allah di ngeen jot suñuy ndaw waxtaanee ko ak ñoom ci anam bu rafet. incha allah ñu daal di koy euh, jël def ko ni mu waree andil leen ko fii ci émission avocat ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax nag ndax yéen a ngi bàyyi xel émission bi macha allah te bu leen di fàtte di abone ci euh, fi nga xamante ni mooy Amsa TV su ko defee lépp loo xam ne dugg na rek da ngeen koy daal di am nu mu gën a yombee macha allah tey nag euh, ñu ngi waxtaane cas bi nga xamante ni cas bi doy waar la waxtaane woon nañ fi bu ni mel la fois passée. muy euh, euh, doomu aadama bi nga xamante ni yàlla mi dara tawul daa def mu am soxna bi mu amee soxna itam dafa nekk ak soxnaam bi mu nekkee ak soxnaam nekk nañu ñaari at yoo xamante ni lii nga xamante ni moom la soxna si expliqué moom lay dund muy lu metti ci soxna si ndeysaan mu woote ci émission bi expliqué ko comme ni mu ko waree expliqué bi loolu jàllee ñu daal di def thème bi comme ni mu waree jox ko askan wi ñi ko seetaan am ci koo xamante ni dafa wax ni moom ci jëmmi boppam depuis ay ati at loolu nga xamante ni moom la waa ji nekkee moom loolu lay dund muy lu méttee méttee métti ci moom muy lu doy waar ci moom muy loo xamante ni jaaxal na ko fu jaaxle yem yëfi jaaxal na ko muy loo xam ne xamul fum ko toppee xamul nan la ko duggee métti na métti goo xamante ne fu ne dem na fa xam naa dinañ ñëw yéen ci li nga xamante ni fa la jaar ak maamën bi nga xam ne moom moo ko woowoon expliqué ko ndax dafa gisoon ñu invité ko ci benn tele wala site internet mu jël numéro maamën bi waxtaan ak moom xamal ko ni ko dafa bëgg mu fajal ko li nga xamante ni mooy li mu àndal mbokk yi mu mel ni waxoon nañ leen fi ni dafa am waa ji nga xam ne dafay euh, sëy ak boppam guddi gu nekk fanaane ko daanaka ba fajar jot te am na soxnaam waaye ginnaaw bu jaxasoowee ak soxnaam ba pare lay dund loolu fanaane ko nag ba bër set nekke ko ba fajar jot bu fajaree mu daal di dem sangu jiite mbooloo mi nekk kilifa gu mag goo xamante ni wax na ni sax daanaka nitu diine la boo xam ne ñépp ñoo ko xam ñuy masawu jabar ji bu baax di ko ñaanal loolu nga xamante ni moom lay dundee ak boroom kër gi yàlla teggi ko ak lu mu mën a doon ndax am na ñi nga xamante ni dañu wax ni loolu doomu aadama du ko tey di ko def guddi ba fajar dafa mel ni dafa am lu mu àndal mbaa ko koy def loo mais doomu aadama rek bu wér péng amul benn problème ci esprit du toog nekk ak soxnaam guddi ba pare xool ndax soxna si nelaw na am nelawul mu daal di sëy ak boppam saay bu paree defaat ko su pare waatee defaat ko nekkee ko ba ñu noddu fajar loolu nit kese munu ko te itam normalul moom waa ji nga xamante ni nekkul senegaal moom nee na loolu da koy dikkal suba ak guddi mu wax ne mbokk yi balaa moo am jàmm suba si bu yeewoo dafay sëy ak boppam ci ay loxoom ba pare bu pare sangu na dem liggéeyi nekkaat ci ay itteem bu ngoonee bala moo tëdd yi tamit dafa defaat comme noonu muy def bu ko defee ba nga xamante ni pare na ci mu soog a am jàmm tëddi mu wax ni loolu nga xamante ni moom la nekkee nekk na lu ko tiis nekk na lu ko naqari boobu ak léegi bàyyiwul fenn fu ne mi ngi fay woote képp ku mu dégg te am ci yow yaakaar jël na sa numéro téléphone woo la waxtaanee ak yow lii tiis la li nga xamante ni mooy jàngoroom di métitam di feebaram ndax kat lii yaakaaruma ni doomu aadama dina ko tey di ko def. léegi nag nee na mu dal ci benn maamun bi nga xam ne dañ ko invité woon rek nee na waxul fi ñu ko invité bi ñu ko invité. mu jël euh, numéro téléphone yi nga xamante ni yooyu la maamun bi joxe bi mu jëlee numéro téléphone yooyu woo ko waxtaan ci ak moom tiis ko ko mu xamal ko ni mën na koo dindi ndax loolu doomu aadama kese du ko def ak boppam rab moo lay dugg wala jinne xam naa ni benn la bu la duggee di la ko defloo di la xiirtal ci yooyu loolu moo koy waral mais nit rek du ko def bi loolu jàllee comme daf ci am lu ko metti bëgg mu tàqali ko ak moom mu xamal maamun bi ni ko dama bëgg nga fajal ma ko mu denc man benn yoon bi mu ko ne dama bëgg nga fajal ma ko mu denc man benn yoon maamun bi nag mi ngi senegal waaye ki nga xamante ni moom la mbir mi dal mi ngi itali bi loolu jàllee maamun bi xamal ko ni ko loolu kat mën naa koo faj waaye maa ngi koy fajee cinq cent euros waa ji tamit ni ko jaral na ma yëkkati 500 euros yónnee ko waaye laataa mu ko ko yónnee ne ne sëriñ bi fatt na ko ak ay woote téléphone minit bu nekk guddi bëccëg suba ngoon timis tàkkusaan mi ngi koy woo di ko wax dugalal xaalis bi ñu defaral la dugalal xaalis bi defaral la li nga nekkee baaxul. nee na bis bu mu yëkkatee 500 euros yooyu yónnee ko ko nee na ci bis boobu la gëj a dégg maaman bi nee na woo na ko jotu ko taaxirlu na ko ngir garab yi nga xamante ni da ko ko waxoon ni ko dinaa la ko defaral. tegal la ko joxal la ko GP bi mu indi la ko ma jox ko sa numéro téléphone nga jokkoo ak moom nee na gisul kenn ku mu yóbbante garab yooyu mu ko digoon mu amoon ci yaakaar gisul déggul tamit waa ji waa ji woowu ko te moom itam saay bu ko woowee du ko jot muy tas yaakaar bu méttee métti boo xam ne doomu aadama bu nekkee ak jàngoroom wala lu nga xamante ne daf ko sonal muy dund ak moom bu amee ci yow yaakaar wax la boo mënee jàppale ko ca waaye boo mënu nga xamal ko ni ko mënuma wala nga seet ku mën nga boole ko moom kenn mënu sax ñu ñëpp dañuy ñaan yàlla rek moo mën waaye bu loolu amee jàppale ko boo ko mënul jàppale waaye waaye bul jël alalam toog ci ba pare woowatoo ko te mu la yónnee alal ji da nga koo fàtt witt di ko woo guddi ba cëg suba ak ngoon ba mu envoyé la cinq cent euros nga jël xaalis boobu lekk ko attan koo dundee yow ak sa njaboot te muy alali jàmbur joo xam ne lewu la ba nga mënul kay déggoo ngeen boo amee soxla wax ko bu mënee fajal la ko bu mënul nga xam ne lii da koo mënul waaye jël alali jàmbur xamal ko ni ko dama lay defal ay garab yoo xam ne loolu nga xam ne moom ngay dund mu metti lool ci yow moom laa lay dindil waa ji boobu ak léegi fu ne mi ngi fay woote dafa waxoon ni sax dafay wax turu ji wax fi mu nekk wax fi ñu ko invité woon wax numéro téléphone am mais fii ci Amsa TV tam ñun suñu émission yi ñu def sutura lañ koy defee mënuñoo wax turu kenn mënuñu joxe yenn eh, kii yi ba sa xel dem ci ne est-ce que du diw ñun daal dañuy tënk rek daal di expliquer ni cas bi demee amaana yàlla mën na ko dimbali waa ji woo ko bu ko woowul itam keneen koo xam ne mën na ko jàppale ci lii nga xamante ni moom lay dund mu jàppale ko ci moom daal nee na dafay sëy ak boppam suba gi bu yeewoo bala moo am jàmm faaw da ko def te nekkul Sénégal mu ngi Italie nee na bala moo am jàmm dafa sëy ak boppam bu demee liggéey wàcc ngoon gi itam bala moo am jàmm dafa sëy ak boppam muy lu metti mbokk yi ku ko mën a jàppale rek numéro yaa ngi noonu comme ni ngeen koy defee saa su nekk mu amaat ki nga xamante ne xale bu jigéen la boo xam ne yaay ji ak papa ji dañoo nekk bitim réew bi ñu nekkee bitim réew tam bàyyi ko fi nga xamante ni mooy kër maamam mu nekk fa jamono ji ñuy wax ak yéen sax mu ngi Europe ci ay waajuram yóbbu nañu ko waaye laataa ñu koy yóbbu xam kenn ku ne xam na ni boo demee bitim réew mënoon ni bëri rek yóbbu sa njaboot faaw nga bàyyi leen fii nga xamante ni mooy ci mbokk yi ñu toog ba nga dem ba liggéey ba indi bi jàppandi nga indi sa njaboot ndax waajur bu nekk boo sañoon fépp foo nekk boo gesoo rek gis sa njaboot waaye léeg-léeg du yomb léeg-léeg mën nga bàyyi sa njaboot ay at liggéey lijjanti xool ba xam ne indi bi mën naa yemb rek nga daal di indi sa njaboot mbokk yi xale bu jigéen bi nekk kër maamam bi nga xamante ni moo jur waajuram bu góor nekk fa ak tontom bi nga xam ne mooy rakku waajuram bu góor mu nekk fa ne nekkin bu rafet amu fa benn jafe-jafe yi tamit amu fa benn problème loolu nag bari na ñoo xam ne seen waajur daf leen a bàyyi seen këri maam daal di dem tukki bu ko defee ñoom dinañ leen sàmm dinañ leen xool bu baax a baax comme que ndénkaane dafa foor te nit ki dafay dem fii ba bitim réew yëkkati doomu aadama dénk la ko loolu kat dafa foor nga war ko sàmm sàmm bu rafet xale bi nee na sàmm nañ ko toppatoon nañ ko amul ca biir kër ga dara lu ko naqari waaye nag ci mbedd mi la ko li ko naqari dabee ci mbedd mi la ko viol dabe ci mbedd mi la ko tolof tolof àddina dale muy lu metti loo xam ni dafa jaxase dundam jaxase viiwam day jooy rek day jooy suba ak ngoon guddi ak bëccëg yëf yi day jékki-jékki rek dem ci li nga xamante ni mooy xelam wax na ni dafa nekkoon fi nga xam ne mooy kër maamam mu génn bis am lu ñu ko yónnee mu dem di ko jëndi bi mu demee di ko jëndi mu am waa ji nga xam ne da ko ne kaay ñu dem ma jënd la tàngal xam nga rek xale booba jamono bi sax demeewul nii ci ay yeete yu nit ñi di yeete ci yenn yi ba nga mën koo moytu ndax jamono jii nii nii nii kaay ma jënd la tàngal yaakaar naa ne xale boo ko wax ay waajuram yee nañ ko ca kër ga ba du la topp waaye jamono boobu nag ak bii du benn. mu daal di ànd ak moom topp waa ji nee na waa ji fopp ko daal di jël oto nee na booba bu amee 13 ans wala 12 ans ci lay yem waa ji ànd ak moom. di ko yóbbu di ko yóbbu ba nee na benn stade fii ci Grand Dakar mu ànd ak moom ba ci stade bi tëb ak moom miir nee na ci biir stade bi am na fu ndaw foo xamante ni waa ji fa la nekk taal fa ay sondeel lal fa basan bi mu àndee ak moom ba foofu mu génne paaka xamal ko ni ko dama lay rey simil sa yére mu summi robe bu mu sol summi li mu jiitloo yépp waa ji daal di koy violer déverger ko yàq àddunaam ba pare bàyyi ko fa xale bi euh, nekk ci fi nga xamante ni mooy barab bi ko waaj bàyyi nekk fa lu mat une heure mu de jéem a jug soox nee na am na ñaar ñu ko gis ñu laaj ko mu expliquer leen ñu dellu siwaat ci barab boobu xool bay bëgg dee gisuñu fa waaj gisuñu fa sax luy nuroog moom ñu laaj ko fan la dëkk yóbbu ko ba fi nga xamante ni mooy seen kër waaye waxuñu ay waajuram dara ndax moom ci boppam moo leen topp ni leen boo leen waxee suñu waa sa suñu waa kër dara sama nijaay ji nga xam te moo nekk ci kër gi daf may rey di ko jooy di ko jooy ba ñooñu ko duñ leen wax dara ñun sax egg ñu yóbbu ko ba biir koñam mu sox ak mettitam ñëw ci kër gi laaj nañ ko foo demoon mu wax ni boppam day metti nekkee noonu di ko dund di feebar di wér di feebar di wér ba yàlla def deux ans après yaay ji ak papa ji defaral ko ay këyitam yóbbu ko ca seen wet bitim réew nee na bi loolu jàllee dund na ak moom mësu ko wax doomu aadama léegi nag mu dem ba nga xamante ni mat na am borom kër mu am borom kër waaye am gi mu am borom kër saay bu borom kër gi jógee pour séq ak moom rek daf koy daal di fàttali la nga xamante ni moom la dundoon ba mu nekkee xale bu ndaw ñu def ko ko muy lu metti loo xam ni mu ngi koy dund dañul ci boppam da koy jooy guddi di ko jooy bëccëg jëkkër ji ci boppam chaque jour da koy laaj yow lan la yow lan la dafa mel ni sa àdduna dañ koo yàq wala lan la lan nan la demee ba tax yow da ngay jooy guddi dangay ngay jooy bëccëg kenn comprendre même man ak yow nekkit bi ñu nekk sax dafay mel ni des fois pour ma ànd ak yow du la gënal waaye ba léegi waa ji xale bu jigéen bi waxul waa ji dara. bi mu seetaanee émission bi xam naa mu di ci woote ci la ko expliqué nee na depuis loolu dal ko ba léegi def na vingt ans mais mosu koo wax doomu aadama muy lu metti loo xamante ni nit ñi ñu ngi koy dund waaye yéen ñi ñu violé lay waxal ak képp koo xamante ni moo leen viole ak lu mu mën a doon ci yow wooteel ci numéro yi nga expliqué li nga xamante ni loolu la la def ak naka la ko defee di yeewaat nit ñi rek képp koo xam dafa teg paaka xamal la ni dama lay rey di la violé du rey kenn bu nangu mukk muy ubbi say ñaari tànk di lay violer dafa ñaaw te dafa metti te bu la ko nit ki defee du la bàyyi xale nag néew na doole néew doole goo xamante ni des fois du mën a defendre boppam waaye képp koo xamante ni daal lii dal na la ñu ngi lay ñaan nga jokkoo ak ñun ci numéro yooyu expliqué ñu nan ak nan la la dal ndax am na ci ñoo xam ne ñu ngi koy souffrir ba léegi ñu ngi koy dund ba léegi def nañ leen ko bu yàgg ay ati at waaye mosuñu ko ŋaaŋ doomu aadama kon nag numéro yaa ngi noonu mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen di leen jox dig daje semaine prochaine ci beneen cas ci biir émission avocat incha allah.